ku ne xam na ni booy Niang bala gay def la bëggoon jël loolu jëlal revanche ci Boy Niang ñu yeewu à notre grande surprise yëg na combat boobu tàbbi na géej te Sénégal yëpp combat lañ bëggoon. waaw yàlla baax leen nuyu aussi profité di nuyu ñëpp moo daan yàlla moo def benn combat boobu taxaw rek man loolu laa ko jàppee leneen. Sa Thiès Garga gaañ ngi koy dox di ci wax avancé na ci sa côté wala avancé wul. waaw jàpp naa ni sori na sori nañ ci trop incha allah am na mais est-ce que tey jóge ci li nga jóge dalaat ci ku mel ne Garga ce que du risque ci yow aussi. sama defet bi ma njëkk am. ka ka ma ka ma ka ma njëkk ka ca teg bëreel kooku dafa naa kooku moom sut moom a ko. àdduna lépp lépp risque la. waaw mais nag yaay risqué sa bopp xam li nga bëgg xam li nga bañ waaw man dara fukk ma. Hmm. Sa Thiès concentration ak technicité bi nekkoon ci moom des fois dañu gis que daf koy perte léeg-léeg ba ci combat mujj bi daf koy perte jàpp nga ni que est-ce que bëree gargar sottal na li nga bëgg ci moom. ci samay nawle maa ci gën a néew defet dégg nga mbaa li ma la wax te kenn ëppale ma ci victoire kon man li may bëri moom ëppoon nit ci man te gëm naa ni moom laa miis moom laa ñàkk jàpp ni mën naa bëri sama bopp. Garga mbër mu coriace la moo la ëpp ci taxawaay te ci wàllu corpulence moo la ëpp bu fekkee liggéey goo fii ak combat bi bagarreur la bërekat la te am aussi fu mu teg bëtam. moo ma ëpp comme lan. ci corpulence. waaw fekkee waaw fekkee fekkee liggéey ko day leer. waaw mais loolu lu koy firnde mooy dañuy xool suñu combat rek suñu taxawaay dëgg yàlla moom mën nga ma am mu yomb. waaye doole moom doomu aadama du ko soobee yàlla su may bëri yor nga lu nii lu daan garga boo gën a néew ko yaakaar naa li ma war a dëgg yàlla man aw ma leen lu may risqué sama àdduna wala sama vie dara mais man pour man lépp a woyof ci àdduna yàlla moom lépp ah yàlla moom lépp man nag lépp dama koy bàyyi ci loxo yàlla xeebu ma nit waxuma kenn dara waaye nag wax dëgg yàlla ku ma taxawal maa la mën laa gëm